sama xol dafa sedd mënoon naa mën mënoon naa jubilé parce que dafa am lu ko waral da may fàttali ba may jëm këyitu Ousmane Sonko yi ci ndawi askan wi jugee université jugee foire ba ca siège ba ñëw di ko indi Thiénaba di ko ku nekk naan ma kii mooy kan kii mooy kan man leen kii mooy l'espoir de la jeunesse sénégalaise te bi bi loolu amee nag ñu ñëw Thiès. je me rappelle très bien à, euh, au quartier dixième muy kanam yoo xam ne xàmmee naa leen on était presque une dizaine de personnes man ci cité nag ministre Birame Souleye Diop un militant les premières heures su fekkente ni benn raison mérité woon ne projet bii ñu reposé wul sur le sur le référentiel Sénégal horizon deux mille cinquante c' est le le ministre Birame Souleye Diop lii ñu naan projet ñu ko doon bind ci la bokk monsieur le ministre merci beaucoup mais dafa wàcc ba ci l'honorable Amadou Ba a Mariama Ndiaye Amadou Dia Adama Diawara maire biti moom la petite sœur de la mère de Ousmane Sonko mu nekkul yàgg kon donc li olof naan li euh, yàgg rek dëgg kon lii lu dëgg ci loolu ñu ngi remercier encore une fois de plus monsieur le maire ci opportunité bi nga xam ne defal na ko Thiénaba muy accueillir la coalition Pastef la liste Pastef départementale bi nga xam ni tey jii bokk na ci ñi nga xam ni le projet man nañ ko mën nañ ko ci ñoom parce que ban koy rëdd ci lañ bokk muy ñii toog nga xam ne seen i talent ku ne xam na ko bu ñu ñëw di Serigne Thiénaba surtout loolu monsieur le ak Serigne Thiénaba Birame Souleye en tant que membre Pastef bu dugg Thiénaba te booba président euh, Macky Sall moo fi nekk bu dugg Thiénaba te daawul kon kii xam na lan mooy Thiénaba kon ñuy taxaw xam na lan mooy Thiénaba kon donc encore une fois de plus ñu ngi leen di dalal seen dëkk beneen bi ci topp mooy comme ni ñu koy waxee rek monsieur le maire li ñu boole mooy suñu responsabilité associative moo ñu boole on a dirigé les étudiants de Thiénaba pendant quatre quatre ans mais aussi les étudiants au niveau national monsieur le maire loxoom bi jub ci ñun pour ñu jàppale étudiants yoo xam dëgg ñu soog Thiénaba suñu relation boobu nag la ñu téye. bii moo tax bi ma tàmbalee ci li nga xam ne mooy ñu ñëw jàppale le président Ousmane Sonko à travers le PASTEF pour mu am une majorité écrasante pour que projet yi nga xam ni à travers les pôles territoires Thiénaba du des ginnaaw te Thiénaba des ginnaaw incha allah kon donc monsieur le maire merci beaucoup pour cette opportunité yow nag kuy dem kuy dem ci àll ku am koo sóoraale waaye war nga sóoraale gaynde monsieur le ministre honorable gaynde dañoo bëgg ñu dugg commune bi ko defee li ñu doon wax naan présidentielle c'était une référendum dañoo bëgg nag cette fois ci mu nekk une pétition au niveau de Thiénaba su ko defee au niveau de la commune de Thiénaba les meilleurs résultats ñu am ko au niveau départemental. beneen bi ci topp mooy la population de Thiénaba Sénégal dañoo dugg ci beneen ère muy l'ère de la transformation structurelle de l'économie du pays Thiénaba warul des ginnaaw. projet bi nga xam ni mën naa wax ne bañ koy dégg Thiès la commencé parce que le président Ousmane Sonko bi ñuy waxtaan li ma gën a xamal mooy que ni man xomba laa dëkk Thiénaba sama yaay fii laa nekk dan naa ko lu fekk si ay nijaay nekk fii Thiénaba xaw ma ku war a jàppale Ousmane Sonko mais Thiénaba warul des ginnaaw rawatina nag ñi nga xam ni lii ñu naan projet ci loxo yi ñii la jaar te mu xam ci lu bëri kon donc encore une fois de plus monsieur le maire ñu wax ni xaw ma tey xaw ma suba mais li ñu bëgg mooy continuité dynamique bi ñu nekkoon mooy jël ndam li teg ko ci loxoy ñi nga xam ni Ousmane Sonko moom la yaakaar ci au niveau départemental mais rawatina la commune de Thiénaba muy honorable Amadou Ba ñu koy remercier au passage parce que tamit dafa am ay décision yoo xam ne daf fi daf fi amoon honorable Amadou Ba tànkam jëm ci ñëw ci le maire di wax ak moom jusqu'à ce que toute la famille se réunisse honorable merci beaucoup kon donc monsieur le ministre ñu ngi témoigner loolu acte bi nga xam honorable Amadou Ba def na ko à l'endroit du maire la commune de Thiénaba encore une fois de plus mooy lancer un appel à la jeunesse de Thiénaba te ñëpp le le allah rabi ñu ngi jël carte yi la coalition a parce que loolu mooy saxu Thiénaba loolu la kilifa yi bëgg loolu la monsieur le maire bëgg te nag loolu mooy njëriñu Thiénaba parce tamit bi ñoo bi nga xam ne président Diomaye Faye am na ko. avec son premier Ousmane Sonko et aussi le ministre Birame Souleye Diop bi nga xam ne barki démb bi ñuy bi ñu waaj gàmm kenn ko dafa taxaw am problème courant mais mu def ci commencé xam ni bi ñuy recevoir dëkk yi nga xam ne mën naa ko kanam la mu def ci commencé yu gaaw xam ne canaba bësam la monsieur ministre merci beaucoup pour cet acte et encore une fois de plus ñu ngi appelé ñëpp à la au calme et à la retenue pour victoire bi la allah. monsieur le ministre. noo ngi lay wax bismillah dalal jàmm yaag délégation bi nga àndal ñëpp muy góor muy jigéen ñu ngi leen wax dalal jàmm fii ci Thiénaba di la nuyu di la bége ci sa ñëw gi nga ñëw fii ci sunu commune bi bu ñu la nuyoo sant la ak délégation bi nga àndal ndax li ñuy wax délégation bu am qualité am quantité fa tabarakallahu moom la gis tey kon ñu ci kontaan bu baax ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu nuyu la monsieur maire de la ak mbooleem ay conseillers du nuyu nag suñu kilifa gi nga xam ni tey moom la ñu nekk ci village tey muy le xalif sénéral di suñu lépp ak chef de village su dëkk bi ak i notaabalam kàddu gi may yëkkati nag maa ngi ci turu tous les chefs de village de la commune de Thiénaba yàlla miy dogal ñu daje bi ñu ma nomee ak léegi vingt jours la trente huit chefs de village yëpp ak vingt trois amul ñi nga xam ne mooy commune Thiénaba ñu daje wax ni suñu kuréel bi association des chefs de village yaa nu tuddee nga jiite nu di nu waxal di nu xalaatal kon mu ngi leen di sant ñoomit bu baax ndax kàddu gi du sama kàddu seen kàddu la ndax ni ko daan waxe léegi rek kenn ku nekk ci ñoom. aman nga yéene ñëw fekk si monsieur le maire tey ci bisam bi ndax jëfu na ko digganteem ak tous les chefs de village bërki démb lundi passé la ñu dem préfecture ma profité woo ci monsieur ministre boo demee nga santal ma président de la république ndax li nga xam ni fekkan na ñu doon ko jagale chef de village yi dafa ñëw confirmer ko di ko jëf ca ba mu jotee kon boo demee nga ne ko chef de village yi commune Thiénaba de xawuma kenn waaye ñoom sant nañu bég nañu te ñu koy ñaanal yàlla ndax ku ko xeeb dangaa xamul parce que sept mille cinq cent villages moo di Sénégal nga bëgg chef de village bu nekk chaque fin de mois nga am loo yëkkati teg ci loxoom loolu ku ko xeeb ay milliards yu bari la kon boo demee nga di ko chef de village yi ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal fas yéene it nag fu mu teg tànkam ñu teg fa tànk ndax le sous-préfet keroog ba ñuy installé dafa wax ni fee ngeen nekk ci village yi chef de village bu nekk yaay président de la république ca village ba kon ñun lépp lu chef président de la république bëgg ak fu mu joxal foofa lañ jublu loola ke la ñuy teg suñu tànk rawatina nag kii ngeen fekk si tey muy monsieur le maire de la commune de Thiénaba ba mu wootee fan yee paase wax ni man de dama leen woo dëkk bu ne woo naa fi kenn nit mu représenté dëkk ba waaye li tax ma woo leen jamono dafa changé jamono yëngu kenn ku nekk jóg di wax waaye comme man da ngeen maa yaakaar may état kon man xalaatuma teg sama tànk fenn fu du fu état teg tànkam ñu rafetlu ko bu baax nag ndax nag it li nga xam ni mooy suñuy bëgg-bëgg ñun commune bi bu ñu ko amee monsieur le maire lañ koy wax monsieur le maire fu ñu koy wax ñun président de la république ak gouvernement kon bu taxawaay jotee kenn ku nekk am nga droit dugg ci réew mi fu la nga dugg ko wax waaye nag képp ku bëgg sa soxla faju boo àndul ak état yàqu nga ko kon chef de village yi de xawma ñenn waaye nun dey ñoo ngi takku tax topp ci ginnaaw monsieur le maire fu mu ñu joxoñ rek bu ñu joxoñ ñen fenn fu dul président de la république ñoo sax dinañ insister parce que li ñu bëgg ci suñu village yi borom réew mee ko man gouvernement moo ko man kon ci kàddu chef de village yépp maa ngi koy confirmer fii ni ñun ñu ngi topp ci ginnaaw monsieur le maire ci fii mu dugal loxoom te fasuñu ko yéene wàcc incha allah ñu ngi leen di sant bu baax nag ndax dëkk boo dem tey ci commune bi trent 38 village yi ak 23 hameaux yi mu ëmb dëkk boo ci dem mën ngaa joxoñ ñu lii état ko fi def grâce à monsieur kon bu demee ba ni damay tàllal sama loxo mbooloo mi waaye nag fa ma koy dugal kat mooy fii. fa mu koy dugal ñun foofa lañ koy dugal te du am benn contestation incha allah kon monsieur le maire na nga yëg ni chef de village yi sant nañu la gërëm nañu la ndax sa taxawaay si diggante ak ñoom ki wax leen wax na ko dëkk boo dem man ngaa joxoñ ni lii dey état ko fi def te mu ngi jaar ci loxo monsieur le bu dee ci wàllu social nag yëmu ci ak kenn dëkk boo dem ku am xew xew wu mën a doon moo xam xewu jàmm la moo xam xewu safaay na boo taxawee di nga gis le maire ak jëfam te du ca boole ay wax kon chef de village yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla monsieur monsieur le ministre li may mujje mooy ngeen di dox yàlla mi nga xam ni mooy borom lépp yàlla na leen jàppandi mu seet bu guyu li ngeen yéene ci réew mi yàlla teg ko ci seeni loxo alhamdulillahi rabbil alamin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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp bi di ànd ak ziar ak di dalal sunu gan ñu tedd ñii nga xam ni ñu ñëw fii ci Thiénaba waaye dañ leen di dalal waaye ñoom mënoon nañoo jël dalal seen bopp te bu boobaa day jekk day rafet day yell ndax ñoom ñoom ñooy boroom dëkk bi ñun ñii fi nekk ñoom lañ fi nekkal ñoom it fa ñu nekk ñun lañ fi nekkal kon ñoom it Birame Souleye yow ak euh, Amadou Ba ak soxna Nabou Ndiéguène yéen ñëpp ñoo ngi leen di dalal fii ci Thiénaba di am mbégte bu baax di am kontaante ci seen ñëw gi di nuyu monsieur le maire Alaaji Talla Diagne ñoo koy jaajëfal muy jàmbaari seexu Thiénaba Euh, di di dit bu baax di ku yàlla dimbuli muy jàmbaar kon loolu moo waral lépp lu mu xewle ñun ñoo nga ca ndax man de kóllëre rek moom may booleeg nit te moom kóllëre ñu boole man ak moom ñu àndoon ci sama jamonoy papa di liggéey di liggéeyal askan wi kon tey jii bu doxee ba egsi fii lu mu xewle rek incha allahu maa ngi ci kon ñoo ngi koy jaajëfal Euh, di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla euh, Birame Souleye yow ak sëñ Amadou Ba ñi ngeen ko àndal ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiya li ngeen di yàlla na yàlla yombalal leen ko ba mu àgg fu ngeen fu kawe seen njort yàlla mën na ko ndax bu bu amee rek euh, njëriñul réew mi la kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di jéggulu kàddu yi ndax xam nañ programme yi ngeen yor kon yéen seen temps lu ngeen ci jox nit rek kooku ku ngeen fonk la kon nag euh, ñu bañ a guddal ñuy ñaan yàlla ñëpp mu kàlla yu fi ne kenn ku ne jàng fatiha jàng ayatul kursi yu fàllaxe ak naas salaatul fatiha ñaan yàlla yàlla yóbbuwaat leen ci jàmm yàlla defal leen jàmm defal leen sutura sàmm leen ba ngeen delluwaat ba lépp lu ngeen di dajee nag yàlla na sa ba euh, nooyal loolu népp waaw yàlla aar leen ba ngeen delluwaat ci jàmm loolu am nañ ci yaakaar yàlla na yàlla defal leen ausbillahi min sarri iblis wa junuudihi wala xawla wala quwwata illa billahi alil azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fi al-ard man zal lazii yashfa'u 'indahu illaa bi-idhnihi ya'lamu maa bayna aydihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituna bi shay'in min 'ilmihi illaa maa shaa'a wa wasi'a kursiyuhu as-samaawaati wal-arda wa laa yaa'uduhu hifdhuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uudhu bi rabbil falaq min sharri maa khalaq wa min sharri haasiqin idhaa waqab wa min sharri nafaasaati fil 'uqad wa min sharri haasidin idhaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbi naas maaliki naas ilaahi naas min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suuri naas min al-jinnati wan-naas allahumma salli alaa sayyidinaa Muhammad salaatan tunjiinaa bihaa min jamiil ahwaali wal aafaati wa taqdii lanaa bihaa jamiil haajaati wa tutahhirunaa bihaa jamiil sayyi'aati wa tarfa'unaa bihaa darajaati wa tuballighnaa bihaa aqsal hayaati min jamiil khayraati fil hayaati wa ba'dal mamaati allahumma salli alaa Muhammad allahumma salli alaa Muhammad yàlla yàlla nangul ñu